guddik alxamis gu nekk jàpp àjjuma li ko dalee ci 0 heure jëm 5 heures du matin ndaw yi ñooy jóg ci liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci biir jumaa ji ak li wër jumaa ji di ko seetaat ba mu set wecc yi nekkoon lu metti lool. ndaw ñu jug la fas yéene jumaa ji di ko bale guddik àjjuma di commencé minuit ba fajar. jumaa ji eh, néewoon nañ kàttan ci saahir ji ak ci koom bi. ba tax na bi ñëw di fi bale si fii yaakaar naa lu mat juróomi bale amuñu ko woon ca bañ koy bale jëmmi peel ak tonnkaay amuñu ko woon xott kanet nga xam si dañ ko daa dóor ba mu nooy moom daa xoosi tëli bi di ko tonni di ko tuuri tey jii suñu borom taw fee xal leen dem ba ñu jënd ay poubelles yoo xam ne wër na li nga xam ne moom moo di jumaay Tuubaa yëpp ba dugg ci yenn ci mbedd yi. mbuus yi xam si mooy waru ci jumaa ji naaw war nañu wut fuñ ko mën a def nañ wut ay papier loo xam si nii dañoo koy fàggu def ko ci jumaa ji lu fi mbuus ñu mën ko fiy def alhamdulilah am nañ tawfiq baax na am nañ ay papel yu tegee nii Xidmatul ko am toll na ci 60 papel muy juróom benn fukki papel mi ngi toll moom yor kàddu daayira bi di fësal ne andi ay poubelle yi mbal dong ci wër ji taxul mu doon li doy waaye tam fas yéene ñoo jël ay ndaw yoo xam ne nii ñooy superviser li nga xam ne moom moo jëm ci liggéey bi. fii may wax yow nii nii ñuy tànn ci biir liggéey bi ku ci mën a jaayante sëriñ bi ñu lay fay weer. nga fi xëy suba ak ngoon di bale mboole mbuus gu naaw nga for ko def ko ci popeel bi ak di saytu popeel yi suñ ko mën am ci mboole mais danañ génn wër ko ci fuñ ko mën a amee ci dëkk bi xidma taxaw na ci te mi ngi ci waxtaan yaakaar naa diir bu néew dana ñoo xam si danañ leen gis ci li wër jumaa ji ñu fay yendu suba ngoon daayira bi di xidmatul xadim di fësal ne jamono ji am na ay mëbët yu gën a yaatu liggéey ci li wër jumaa ji dong jamono ji li nga xam ne moom moo nekk seen ay projet yi ñu dëgmal mooy wut ay oto yoo xam ne day tonni mbalit mi ci mbooleem dëkk bu sell bi di Touba waaye itam di ko bale. waaw projet yi ñu dëgmal mooy euh, Touba moom bu ñu ne ab xolam mooy jumaa ji. Mm-hmm. ci lañ commencé liggéey sëriñ bi di ko bale. Mm-hmm. waaye nag suñu yéene ak suñu naal. Mm-hmm. li wër Touba lépp lépp bëgg nañ di ko bale muy xidmatul xadim suñu yéene ak suñu naal bëgg nañ oto bi ñu am muy créature xam nañ sax moom yëlluwul ak jumaa ji mm-hmm. waaye nag ci lañ toll doxantu mm-hmm. fas yéene nañ ci ba am ci oto yoo xam si nii dañ koy def ci biir koñ yi mm-hmm. koñ yi ndax Touba soxna yi ci nekk ñu takku leen ndax alxames ñu ne dañuy bale koñ yi ba mu set waaye am nañ jafe génn mbalit ma foofa dañ koy xool rek kër goo xam si nii xëy na agul la ñu ko fa wala jal ko ci koñ xirmal li mu ci mooy fas yéene oto yoo xam si nii ak ay kees yoo si da koy teg ci koñ yooya muy wër di jël mbalin bi daayira Xidmatul Xadim doore woon ci ay ndaw yu néew waaye itam ñàkkoonul ay jumtukaay tey jii ñu dem ba suñ borom taw feexal leen ci ab tracteur ñu dajale seen ñaq di ca dolli seen doole ngir liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul tey jii di soññ mboolem taalibe yi ngir ñu gën leen a jàppale ci ketug li nga xam ne moom wër jumaa ji rawatina dëkk